découverte bi tey Exidex euh, e kan la. voilà donc dañuy dem ci benn artiste sénégalais Chouwa la tudd donc euh, Chouwa Kids donc dañ koy. ay Xflow dafa def benn cover donc euh, reprendre benn morceau Wally Seck donc nañu ko déglu et juste après vous allez me dire si vous validez ou pas mais je sais que vous allez a allez valider. jox ma sa xol bi ànd ak man di happy race bi din ma xëñ ci yow la voilà c'est une belle reprise mu ngi tudd X Flow. voilà exactement donc mu def benn cover. Euh, Wally Seck bi donc loving bi donc la jëlaat euh, def ko cover donc c'est très bien mais li ñuy waxaat xale yi def cover moom mooy euh, si tu reprends une autre chanson euh, n'essaie pas de la chanter comme l'artiste l'a chantée donc yow mën nga utiliser le texte pour ne pas dénaturer le texte mm. euh, garde les mélodies mais yow apporter yow surtout touche bopp ba nga xamante ne bu ñu lay déglu ne ah neex na mais on concentre une différence mais c'est très bien. hein. on mhm. encourage parce que y a y a la voix y a le talent. mais ñu ñaaxaat booy yi aussi rek bu ñuy def cover rek. Mhm. artiste bu ñu mën a reprendre ñu andi ci ñoom. seen touche personnelle. comme ça ñu mën ko déggee neneen et non pas ñu dégg comme l' artiste. dans ce cas là on juge c'est que ça se ressemble effectivement donc c' est un peu délicat parce que dañ lay juger parce qu'on a plutôt tendance à écouter entendre l' artiste. Mm. donc da ngay daan de l' mm. artiste. Mm-hmm. donc euh, li nga mën li mën sauver nag moom mooy mu différent bu ragal a wéy at sa baat mm. donc wéy at sa baat. donc bañ a topp euh, air bi mais c'est très bien d'autant plus que cover dafa xew et puis ça montre aussi benn côté interprétation euh, sénégalais dañ ko commencé war a jàng c'est bien d'interpréter fii ñun loolu mooy suñu euh, xaw nañu xaw na fi sooxe tuuti interprétation mm-hmm. mën nga nekk artiste waaye mënoo bind mm-hmm. am nga baat organe bi mais foog ñu lay bindal donc nga jël interpréter loolu il faut que Sénégal yi commence te def moo gën a métti encore mhm. interpréter c'est très très difficile way li nga fent yomb na mais way lu la bindal mhm. wala loolu la keneen way jox la air bi voilà et tout ça wala jox la témoin rek nga nar ko wayaat c'est mhm. très dur dafa laaj euh, liggéey mais c'est bien en tout cas on encourage la nouvelle génération particulièrement Exflow voilà mu nekkoon Exside c'est invité de la rédaction <laughs> ay <laughs> ku lu ne wax nag man xam naa ne rek c'est finalement c'est sera l'invité de la cuisine aujourd'hui. en fait moom mooy abusé je pense que day lay day seet tur boo xamante ne. moom moo lay englobé yow. te loolu on ne trouve pas encore mais est-ce que duñu def réunion spéciale. allez xam naa fi ma ko denc ci benn planète laa ko def. bàyyi ko foofu. waay li tax duñ trouvé. maintenant bonne chance. ok qui arrêtera Excidex. pour y aller pour viser les étoiles c'est fini ak c'est fini ak woy yi découverte bi ak euh, loolu loolu rek la. <laughs> d'accord merci ñu ngi lay gërëm.